yàlla teg leen nattu ñu waxtaan ak ñoom fàttali leen fàttali suñu bopp ci ne yàlla sunu boroom tabaraka wa taala dafay nattu ab jaam te ñëpp lay nattu itam sunu borom dafa wax ci alquranul karim nii adduna ñi fi ne ñëpp ci nattu lañ ne ñi ne ci xéewal ci nattu lañ ne ñi ne ci safaanu xéewal ci nattu lañ ne wa nabluukum bi sharri wal xayri kon lépp nattu la nattu boobu nag ku ko suñ borom teg dafa am lum laaj la ca jiitu mooy nga gën a yaakaar sa borom xam ne sunu borom mooy ki nga xam ne boo demee ba gisatoo kenn moom rek ngay gis mooy ki nga xam ne mosulaa bàyyi mukk ba nga ñëwagul àdduna la tàmbalee jëflante yow di la dimbali ba ni nga ñëwee àdduna say waajur yu jigéen sa waajur wu jigéen yërmaane jim la ëppal jim la ëmbal yàlla moo ko def ci moom ngir mu laa la sàmm mboolem loo fi amit ci xéewal xamal ne ci moom la bàyyi ko buur boobu yi nga xam ne nag day buur bu bari yërmaande buur bu ñeewante doomu aadama doomu aadama bépp boo doomu aadama boo xam ne dem na ba jaaxle daa war a delluwaat ci moom wéeruwaat ci moom yaakaar ko te xam ne moom rek mooy ki ko mën a dimbali mooy ki ko mën a xettali mooy ki ko mën a jàppale mooy ki ko mën a defal lim bëgg lépp ci àdduna ak alaaxira la ci jiitu mooy nga xam ne moom buur bu bari yërmaane la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ca xaswatu Uhud xareb dafa gis soxna soo xam ni day wër doomam ab liir bu mu amoon di ko wër di ko wër ci biir mbooloo mi ba gis ko rek jël ko taf ko ci dënnam yonente bi ne leen waaw ndax jigéen ji dana jël doomam ji sànni ko ci xal sahaba yépp ne ko déedéet du ko def mukk mu ne leen lallahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha sunu borom ni mu yërëme doomu aadama moo raw ni jigéen ji yërëme doomam ji sunu borom yow li nga war a njëkk a xam mooy dalaa bëgg mom ci boobu mo waxal boobu ne doomu adama dama ko teral wala qad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathiri mimman khalaqna tafdila dafa wax dama teral doomu adama tax kaw suuf si mboolem li fi ne ma def ko muy liggéeyal doomu adama mu tagatanu lépp wa saxara lakum ma fi samawati wa ma fi l ardi jamian minhu lépp mu tàggatanu ko mu ni géej géeg jéeri jéeg asamaan si muy biddiw yéeg lépp boo gisee ci luy jariñ doomu aadama ci lay dox yëmut ci loolu ruux gi mu def ci nun mu xamal nu ne ruux googu kat bokkut ak ruux gi ne ci yeneen mala yi wa nafaxtu fiihi min yi mooy sama ruuxuk bopp ruux goo xam da ko askan ci boppam askanu teraanga moom la def ci nun loolu moo wutale doomu aadama ak mboolem mbindeef yi ne ci kaw suuf yëmut ci loolu bi mu sàkkee doomu aadama dafa digal mboolem malayka yépp ñu jox ko cër nuyu ko jox ko cër yëmut ci loolu nee na saa yoo doxee benn jéego wut ma ma dox fukki jéego wut si la boo doxee mètre wut si ma nee na ma dox fukki kilomètre wut si la yëmut ci loolu wax na ne mbooleem loo mën a def itam ci ay rëcc rëcc saa yoo toogee ne ma jéggal ma rek ma jéggal la lépp te du ma ci du ma du ma xool dara ca la nga defoon wax na ne bëccëg bu ne dana tàllal loxo jaam ñi ne ana kuy jéggalu ma jéggal guddi gu dana tàllal loxo jaam ñi ne leen ana kuy jéggalu ma jéggal wax na ne doomu aadama moom yàllaa ko bindee njuumte kenn ku mucc ci ay njuumte amul njuumte lu rëy ak lu ndaw dañuy wax waaye ñëpp am ay rëcc rëcc kenn ku ne itam da ngay juum ndax doomu aadama ni ko yàlla binde faw muy juum juumte yooyu sun borom moom fasaase moom boo jégaloo rek daal dala koy jégal ne ya ibadi innakum tuxti'uuna billayli wannahaari wa ana agfiru dunuba fastaghfiruni aghfir lakum su ngeen ma jéggaloo rek ma jéggal leen wax na sax ne bu ngeen yoroon ci bàkkaar lu toll ne feppi suuf si ñu de ñu tegale ko ba ci kaw lu mu bari bari bari bu mu la tee ñëw nee na saa yoo ñëwee rek ne ma jéggal ma rek ma daal lay jéggal qul ya ibadiya alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dunuba jamian te nee na bàkkaar yépp lay jéggale kon jaam bi li mu war a xam mooy am nga buur boo xam ni bu la bëgg la bu la teral la te defal na la ci xéewal loo xam ni boo ko doon wàññi mënoo koo lim وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فيمنا يو أم نيو باري دين جابني بني أمول خالص رك أم نيو دارا فك لينا أم تيسا بير تي أي خيات خيول كن خمو نوم دون فيمنا نلو ميرك نخم ندف لو يوم بلا gudi day jot ngay wulbeuti ko wulbeuti ko bay ne nekko fi jek jek bo noppulo bo noppulo gis ni ñewat nga xamoo foo demoon nag nu la dem noonu yóbbu xéewalug nelaw suñu borom moo la ko moo la ko yónnee fi mu ne wax jii ñuy wax da ngay bëgg wax rek gis ne yaa ngi wax waaye noo def ba wax fi ne mënoo ko leer xéewal la gu rëy gu ne yàlla jox li nga mokkal ci sa bopp bi it noonu da nga koy jàng ba yaakaar ne ma nga fa rek saa yoo ko bëggee del si delloo si nga delloo si waat ko waaye bis ngay ñëw bëgg koo delloo si gis ne nekkatu fa kon daa am ko la ko fa dencal kattan yi doomu aadama yi jëfandikoo yëpp it noonu la mel sunu borom dafa tëral doomu aadama jox ko am xel doomu maadama ku néew doole la mala yi ci kaw suuf yëpp ko ëpp doole fi ne naga ko ëpp doole fas ko ëpp doole waaye defal na ko xel moo xam ni dem na ba mën a tàggat fas nag di jëfandikoo mënta naaw ci kaw su ci kaw jaww ji waaye yàlla defal na ko xel moo xam ni mën naa liggéey luy naaw nii picc yi géej gi itam mënu caa dugg yàgg ca waaye yàlla digal na ko man yàlla dimbali na ko man caa mu man a liggéey loo xam ne da cay jaar ca kaw ak di dugg ca biir kon suñu borom li ngay njëkk a xam mooy buur bu baax la bu la yërëm la bu la taxawu la te mosula bàyyi te dara du neen ci kaw suuf maanaam dara neenul lépp loo gis rek am na sabab am na lu tax te moo gën itam te bala nga xam ne moo gën dangay dem ba weesu ko sayyiduna musa alayhi salam sunu borom da mas di wan mandom gi ne ko demal ca dex ga wala ca geej ga nga laqatu tok di xol di setan bam deme laqatu nes tut mu mu gis xam da ñew simbi mu simbi mbubam dugg ci geej gi di sangu nes tut mu gis xale bu fi jaar xol mbubu waji fekk ca ab témèr wala ab junni mu jël ko daw ne suut am gumba guy palantu palamtu ba agsi fi te waa ji génn ci dex gi gi mu doon sangoo bi mu ñëwee xool yére yi xool lam ca dencoon gisatu ko mu dab waa ji ne ko yaa ko gis yaa jël mooy gumba gi gumba gi ne ko man jëluma ko nee na muy xëccoog moom di xëccoog moom di ko poñe ba gumba gi sedd guy mu faat ko Seydina Moussa amul jàmm fa ne waaye suñu borom leeral ko ko ne ko xale be nga gis mu jël xaalisu waji waji da da daa daa liggéeylu ko caa fay ab téeméer wala ab junni te juutu ko koo jox te bu ko fayoon bàyyam faatu na xale be ko wara a doon nga xam ne xale xale bi dafa yàkkamte waaye xàqam yàgg-yàgg bu bu bu bu bu bu mu ñëw nit dana ca jot ne ko gumba gii nga gisit bi mu daataa gumba moo rayoon bàyyi waa ji fi ne adduna lépp lépp lépp na ko loolu na borom di dara sëñ bu Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu danaa wax ne adduna kenn deful kenn dara kenn defalul kenn dara lu waay def boppam lu la waay def mu mel ne dalay dalay dala koy def ci lu naqari lu la naqari wala lu metti nee na boppam la koy def nit yàlla yi mën a gis buñ gisee jëf yooyu dañuy gis na muy delloo ci waaja bu dee lu neex itam wala lu baax itam mu koy defal nit day mel ne kii lay defal fekk boppam la koy defal moo tax dañuy wax ne tumuranke goo gis coono boo gis natt boo gis musiba boo gis balaa boo gis xéewal a ci biiram fi mu ne waa ji nga xam ne dafa wéradi te wéradi gi ñu ne ko sa tànk bi wéradi gi day yéeg di dem nga xam ne buñ ko dëggul maanaam day yéeg mën na mën na laa faat kooku day bëgg ñu dagg tànk bi te bu koy docteur bi ko koy daggal làmmiñ wi muy mettit loo ci la koy sant fi ne ndax xam na ne bu dëggu tànk bi la jur moo ëpp lépp nag noonu la demee mooy nattu boo gis coono boo gis xamal ne lii day lu mënta ñàkk ci sa dund nga war caa jëlee nag bind waaye xool itam wetu xéewal gi nga xam ne moo ci am suñu borom wax na nañu ci alxuraan ne waxoon na jullit ñi ba ñuy doog a dugg ci lislaam ci njëlbeenu lislaam mbooleem gaa yu baax yëpp ami nattu maanaam yonent bi da wax ne ki ëpp nattu mooy ki gën a ki ki yàlla ki ki yàlla gën a bëgg kooku lay gën a nattu ambiyaw yi moo tax ñëw ëppi nattu gis nañ yonent yoo xam ne dañ leen a faat am yonent yoo xam ne dañ leen a rendi am yonent yoo xam ne ku mel ne Seydina Yaxya nga xam dañ ko si ab si lañ def ci kii ba mu def ñaari gaal gis nga si Ahmadou Bamba radiyallahu anhu lim daj nga xam ne fanweeri at ak ñett ci dundam tubaab yi noppaluñ ko yoo gis nga géej gi gabam mu def fa juróom-ñaari at ak nangam ñëw ñu yóbbu ko fële ca gànnaar mu def fa ñeenti at ginnaaw ba ñu yóbbu ko jolof ca Ceyeen ginnaaw ba ñu def ko yóbbu ko fee ca euh, Njaareem résidence résidence surveillée lañ ko defoon fukki at ak juróom. nga xam ne Touba gi mu bëggoon a dë bëgg gën bëgg dem nga xam ne mooy dëkk bi ko gënal ci dëkk yi ñaan na yàlla ba tey dellu fa ilahi ila Touba ya qudni wa salliman wa qudni ila Touba. bërëb yu bare bari ñaan na ko nyuko te gis nga mësuñu koo may mu delluwaat tuba ba ni fi jógee ca la ca la mësta tuba am na lettre boo xam sax mag ñi nga borom darul mautek sëñ afek sëñ balla coro ñoo ko signé doon ñaan tuba bi mu dimbali sëñ bi may ko mu dellu tuba waaye sëñ bi nungutoo na ñaan tuba bi dara te tuba bi doon xaar bi ñaan ko autorisation maanaam kon nyep nat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 moo tax ahasiba naasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanuna a borom nee na bu leen yaakaar ne mukk dee naa gëm naa rek ma bàyyi leen noonu faw ma nattu leen kon natt boobu doom ab ab julit da ko war di xaar xam ne moom mënu la ñàkk adduna siinu ne yonent bi daa waxoon ne kaso la ci ab jullit di àjjana ci ab yéefar kaso nag mënu mu neex ci yow kon fu mel noonu boo fa nekkee la ngay njëkk a xam mooy maanaam bërëb yii ngeen ne na ngeen xam ne am ngeen tawfeex ju rëy mooy am ngeen waxtu waxtu moom la ñee ñàkk ñee ca biti moom la ñàkk kër kër jéeg njaboot geeg ak yittey adduna ji tax na ñoom fi ne tëluñu dara dara neexatu ci ci biti ci ñoom boo nekkee fii nag lu mën a xew danga am waxtu sëñ Issa géey mu baax mii nga xam ne noo ànd da koy wax ci jataay ba njëkk a def wax ne fi ne li nga xam ne moom nga war a mën a jàmbat fii du dara lu may ñàkk liberté te ñàkk liberté ñi ngi ko seqal man doomu aadama yëpp man njiitu réew mi ci loolu la ne ndax am na loo xam ne sëñu ko am na foo xam ne sëñu faa dem amna na dañ koy jugal di ko togloo di ko defal di ko kon kooku amul liberté dëgg-dëgg liberté kenn amu ko dëgg-dëgg total ken amu ko kon bërëb yu mel nii boo fi nekkee da ngay ki ki ki ki ki ñu tëj ki xolam tuju, ki xolam xamut yàlla waaye ku mos jëflanteeg sunu borom delluwaat ci sunu borom da nga aduna dara daqu fi nga am waxtu man koo jëflante man cee jëflanteeg suñu borom man koo delloo suñu borom loolu nag ni mi amee mooy mi ngi tàmbalee ci bis bi farata yi nga fexe ba ko julli njël borom dafa wax day wàcc ba jege nit ñi di laaj waaw ku am soxla ma lijjantil ko ko ku am ku bëgg ku ami bakar ma jéggal ko ku bëgg wërsëg ma jox ko ku bëgg nangam ma jox la ku ami nattu ma la ko Fofu da nga fe war a profito fexe ba jataay boobu moom njël moom njëkk njëkk fajar nga am jataay boo xam ne da koy toog sa borom fi ñu bari dañoo xamul dañu ñaan da ngay ñëw ku mel ne man kii nga ñaan la ko waaye fekk yow léeg-léeg sa ñaanu bopp sax muy gën gaaw sunu borom dégg na làkk yépp waxal ak moom ci làkk bi nga napp namp ne ko sunu borom maa ngi nii di sab jaam bu ñàkk bu tumuranke bu torox aw ma xaw ma yow nag yaa am lépp taman lépp yaa ngi may gis te wóor na ma ne li ma nekk lépp dara ump na ci maa ngi ñaan nag nga woye falal ma loolu ku ko ku ko nattu rek essayé ko ay fan danga gis soppi bu rëy ci sa dund da nga gis geneen leer gu tàbbi sa xol da gis meneen mbégte mu da tàbbi sa yu bari dana woyof ci yow rawatina nag nga xam ne adduna si ab jaaruwaay la te yàggul te nit mënu fee yàgg-yàgg ba ëpp fi téeméer at fi fële nu jëm nag dara du fa jeex te lépp fee lay leere ba tax na yow lépp solo mooy sa xol bii moom fexeel ba dëkkal ci suñu borom bul ci bàyyi ay ñagg-ñagg maanaam bul jàppal nit ñi dara ay jàppalante ba yooyu loolu bul ci dugg bul iñaane kenn na nga yéene ñëpp aw yiw waaye bul jàppal kenn dara ndax lépp suñu borom dana ko lijjanti xam nga wolof yi da yàgg nañu wax ne sàcc bu du raw yàq say nelaw nit ki bu fekkee dalay tooñ wala mu lay sonal bu fekkee wóor na la kii du raw yàlla dana ko lijjanteeg moom bis loolu jërul yow mu lay yàqal wala muy xajamal sa xol wéyal rek yow te bàyyeekook yàlla te dund gi dafa gàtt suñ Tuubaa dara wax ne adduna dafa gàtt li muy gàtt gàtt nee na dundu doomu aadama ko gën a gàtt dundu doomu li muy gàtt gàtt it na fi ngay manee ak fi ngay tëlee ko gën a gàtt kon bërëb yu mel nii ku fi ne li nga war a def mooy muñ muñ nag lu am daraja la ndax suñu borom wax na ne jaam bi bu ko tegee nattu mu muñ ko na xam ne waxtu ne maa ngi ànd ak moom inna allaha maa sabirina na xam ne itam man ko ko bëgg laa wallahu yuhibbu sabirina na xam ne itam faw dinaa ko tàbbal àjjana na xam ne itam faw dinaa ko dimbali te li ma koy fay itam du ma ko wutal compte innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi gayri xisaabin mooy li la suñu borom di fayee ci muñ gi nga muñ muñ nag lu jafe la mooy da ngay muñ te yàlla tax bul topp kenn dara bul jàppal kenn dara nanga bàyyi lépp ci loxol suñu borom wéeru ci moom loolu ku ko def di nga gis bunt bu ko defee nag bërëb yi ku fi ne am na lu gaaw ci mën a dundal sa waxtu loo xam ni mbokk yi yaakaar naa waajaloon nañ ko mooy ni ngeen ko xamee doomu aadama yàlla da ko sàkk ngir mu jaam ko ak ngir mu wut ngërëmum ngërëmul yàlla gis nga si Ahmadou Bamba radiyallaahu anhu ñaanam yi ci gën a kawe mooy ñaan ridallaahil akbar ngërëmul yàlla gi li gën a màgg ngërëmul yàlla yooyee nag la koy maye farata yi boo ko dee defee bi ay naafila da ci am naafila nag la ca jiitu mooy ay tudd yàlla tudd yàlla moo tax tariqa yépp ngeen gis mu am tudd yàlla mu am wird woo xam ni ak tudd yàlla goo xam ni nit ki da koy saxoo murid bi da koy saxoo di ko def suba ngoon diir bu néew leerug suñu borom wàcc ci xolam mu gis mbégteem xol mu gis dégg nga tawféex ju baree bari joo xam ne am na ci yoo xam ne kenn mënu ko waxtaane loolu nag noo ngi ci soññi sunu bopp di ci soññ sunu mbokki taalibe yëpp ñu xam ne waxtu yi boo fii boo fi nekkee war nga fay mën a profité masalan jël al wirdul maaxuusu min allahi di wirdu wi nga xam ne mooy wirdu Cheikh Ahmadou Bamba radiyallaahu anhu nga xam ne moo ko digaloon mboolem taalibe yëpp wax ne nañ koy jël te di ko fonk te di ko jëfandikoo wax ne ku koy jëfandikoo doo gis lu la naqari te doo texee di te di nga am imaan ak islaam ak ihsaan te faw di nga tàbbi àjjana te kenn du lijjën sa mbir te seytaan yi du la mën a jege fen wax ci itam yeneen yu baree baree bari kon yu mel noonu lañ mën a dundale waxtu mooy def farata yi fonk istighfar muy jéggulu suñu borom tabaraka wa taala di def lu mel ne wirdul maaxoo suba ak ngoon ci sart yi incha allah gaa ñi indi nañ ci ay ay ay ay ay copie yoo xam ni ku ko soxla bu noppee ñu jox la ko waaye itam loo man ci xasida itam nga am ci dog waaye li ëpp solo mooy sa xol nga fexe ba mu bañ a xajam nga fexe ba mu xajam bañ cee dugal lu mel ne jàppal dara wala mer yooyu day lëndëm lay def ci xol tey li nga li la dal ak lu mën a doon nga bàyyi ko ci loxol suñu borom la nga ja defit nga xam ko la la la la ca warit nga xam ko xam la la ca war ndax lu mel ne bërëb yi bërëb la yoo xam ni dañ koy def maanaam adduna dafa dafa am aw yoon woo ne mënta ñàkk ndax xaq yi ngir ñu bañ a kenn kenn bañ jël xaqi morom yi moo tax bërëb yi mel ni mënta ñàkk waaye nag kenn ku ne xam na ne doomu aadama yi maanaam yonent bi ci moom dara wax ne maanaam léeg ñaar dinañ ñëw jàppante kenn ki gën a mën a wax gën a mën a lay tax ma jox ko dëgg fekk moomu dëgg gi loolu day am waaye loolu lépp nag li ciy musle mooy nit ki delluwaat ci boromam xam ne sunu borom moom buur bu baax la bu sel bu bari yërmaane bu la taxaw boo xam ne boo demee ba gisatoo kenn moom rek ngay gis te moom foo ko wooyee mu wuyu la Moussa mi ma waxoon dafa am mbokk mbokkam muñ daa wax Xaaruuna alayhi salaam euh, Xaaruuna du du woon ab julit Seydina Moussa alayhi salaam moom moo ab yonent la ngeen ko xamee mooy yonente banu Israaël woon alal nag bëggoon daraja itam daraja Seydina Moussa am metti ko benn bis. mu fay seen soxna soxna dafa tollu ab diggante ne ko dama bëgg nga fekk Moussa fa muy nga ne ko nga ne mbooloo mi ëmb bii ma dalkat Moussa mi ma ko Musa soxna si dem ba fa Moussa di waaraatee di wax ak nit ñi mu ne Musa ëmb bii ngeen gis ci man de Moussa moom ma ko teg li bari bi jaxaso ne waaw Moussa min ko Moussa mere xaaru fofu foofu ñaan borom ngir atte ko diggam ak Xaaruuna sunu borom xamal ko ne mboolem li nga bëgg ci ci moom may naa la tey jii loo loo bëgg ci suuf si rek loo digal suuf si ci moom mu def ko fasaasi Seydina Moussa ànd ak mbooloo mi dem ci Xaaruuna bañ demee mu ne suuf si jëlal si Xaaruuna mi mëdd ko suuf si di ko dugal ci biiram di ko xëcc di ko xëcc di ko xëcc ba Xaaruuna ne mentañ ci suuf si kenn gisatu ko sayyidina musa sunu borom wax ko ne ko yow day wuute na mag yow ndax xaaruna woo na la juróom ñaar fukki yoon di la jéggul naa la jéggal ma dimbali ma nga nga bañ koo nga nga bañ koo jégal man de bu ma woon yoon rek ma jégal ko bu yoon rek ma ko kon suñu borom buur bu baax la bu bari bu la itam boo xam ni lépp am ci kaw suuf rek moo la ko jox ba nga mënagu dara moo la doon taxawu ëmbal la yërmaane joo xam ni keneen ëmbalu la ko ndax yonente bi nee na yërmaane jëm la ëmbal moo raw ji la ma ji sa ndey ëmbal yow mi nga kon wi insha allahu taala noo ngi jéglu jox sëñ isaa rek mu def soññe bu ci wirdul xos incha allah ku ko bëgg nag ñu jox la ko ndax gàttaay waxtu wi waxtu wi laa def